jamono bi moom phénomène bi xew lu doy waar la xewoon na fi ma ànd sama femme yi ci réseau de femmes lébu di ci xeex ci jamonoy président Abdoulaye wàdd ba lu bari wàññeeku waaye système bi du système bu baax waaye booy seetit ba ci biir xale yi dañoo sonn sonn nañ biir kër yi li fi ne lépp ñi mën a tàllal seeni loxo ci mbedd mi mën nañu ko waaye ñu sonn te nekk ci biir kër yi ñoo gën a dee ñépp ndax xam nga ne kër goo dugg jamono ji kenn nit a fay liggéey kenn nit ka fay liggéey si pexey boppam lay liggéeyee macha allah femme lébu yi nag toujours ñu ngi takku pour seeni doom bañ cee bokk te buñ ñëwee géej danga naan séeréeru ñamuñ ko lay doon wala géttu ndar wala doomi lébu ñoom ñoo fi doon capitaine yi gaal kon ñoom affaire bii di am am na luñ ci xam te am na lu leen si umpul daal te ni xale yi def nii si géej gi ñaaw na torop torop torop ku jur guddi yi doom ju jigéen doom ju góor sax gisoo ko 15 minutes gisoo ko boo xoolee saw fit du dal ñu bëgg président Macky Sall mu gëstu femme lébu yi ak lébu yi sonn nañu ñun femme yi dey sentiruñu si nguuram gi suñu bopp nguur du tabaxi pont rek ak i tali ndax jamono ji ku lekkul ku ne xamoo foo jëm lébu yi dañoo sonn géej gi amatul dara bato bes bés yi dangay dem maare nga ser say mbaal bato ba jóge fee ñëw sekki sa sekki sa mbaal sànni nga xëy di seddi ji doo fa fekk dara nga commencé waat à zéro xëy na banque nga leboon jënd mbaal yi wala ki jéeg laneen banque ba taxawu la ngay ku di la fayeku ba bëccëg waaw boo xamul fooy dem doo dugg ci gaal yi xaru dee noppalu ngeen xamal Macky Sall ne que famille bu yi ñaxtu nañu sonn nañu te bu moytuwul dinañu wàcc si tali bi yor suñuy kastiloo ak suñuy kuddi cumwaar di tëgg di yuuxu